أشهد أن لا mooy ki texe waaye képp koo xamante ne teggi nga yóbbu woon kooku mooy ki texe bokk jullit yi borom bi subhaanahu wa taala itam ginnaaw bi ñu bindee ngir ak euh, jubluwaay boo xamante ne moom la bii nag da ko utal ab yamuwaay kuy dund ku nekk am na dig boo xamante ne moom la la tëralal ne la fii la sa dund di yam waaye diir boobu nga xam ne moom la la fi bàyyi ngay dund dir bobu ci nga mana a lo xamantene mo lay jariñ bu ëllëgé fa nga xamantene fa ngay jëm ya ayyul insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan fa mulaqi yaa ngi nii di dund yaa ngi jëf da nga ak sa borom tassé ak sa borom nak la lay gëreem lo moy nga jëfoon jëf ju baax jo xamne ne tax sa borom gëreem la nga taxé waye bo jëfoon safan ba kooku moy ki nga xamantene mom moy eh, ki alko mbokk julit dunduk aduna ak lu mu yag yag, lu gàtt-gàtt la boo ko comparé ak dund ga nga xamante ne mooy xaar doomu aadama bi après ndax mbir lu mu yag yàgg waaye amna ab dig bo xam fa la yam jeex loola dafa mel ne lu gàtt la boo ko ak loo xam ne du jeexati ba faw bo fa xasee ba dem jeex na amatut de, da ngay nekk ci xéewal wala nga nekk ci safaan ba wala billah kon kenn warta waru ci li nga xamante ne moom mooy dund àdduna bi tey itam sax fii lu fi saw fan gën a gudd daanaka mooy daf lay gën a jegale rek sab dee daf lay gën a jegele sab dig ndax digg ba moom rëddal nañ la ko ba bari ne fii nga jëm te yaa ngi avancé di dem kon jéego boo seqi rek xamal ne yaa ngi jëm ci digg ba nga xamante ne fa lañ la rëddal na yow fii ngay fii ngay yem mbokk jullit yi ñu baree baree bari ci mbindeef yi sàggan nañ wala danañ fàtte lan moo taxoon borom bi subhaanahu wa taala bindi leen ba ñu jàpp ne dañ leen indi fii ci àdduna rek ngir ñuy bànneexu ngir ñu topp rek li nga xamante ne mooy poyetum àdduna mi poñet mi fàtte li nga xamante ne moo leen di xaar ëllëg fàtte li taxoon ñu indi leen fii ci kaw suuf moo tax borom bi subhaanahu wa taala ne alhaakumu takaasur xatta zurtumul maqaabir lu bare bare bari ci nit ñi ëpplante ci mbirum àdduna mi nga xam ne taxul woon ñu indi leen fii loolu dem na ba fàttalee leen li taxoon ñu indi leen fii te mooy ñu jaamu borom bi subhanahu wa taala te mooy ñu waajal ngir kër ga nga xamante ne ci la ñuy ñibbi loolu nag danañ dem ba gis résultat ba te mooy dee ñëw ñu xam ne nag ndekete ñoom lañ doon kër-këri di ca sonn nekkul woon la ëppoon solo nekkul woon l'essentiel bi la nga xam ne moom lañ fàtte woon nag doyadal ko loolu mooy la ëppoon solo lañ waroon a euh, fàggu loolu moo tax jaam bi kon fu mu toll dafa war di fàttaliku li ko fi indi woon fàttaliku ne dund gi lu gàtt la ab temps la bu ndaw buy dem loolu moo tax alquranul karim di giñ ci waxtu di giñ ci bëccëg di giñ ci ngoon di giñ ci yoor yor ak yeneen ak yeneen borom bi subhanahu wa di ci giñ ngir attirer attention nit ñi. ne len bayi len xel temps bi nga xamantene mi ngi dem nga xamantene tay ji da ngay jek jek ne euh, euh, koor ga bu yàggut lañ togon di ko xaar wessuna korite gañ don préparer wessuna na ki geñu jëm da ngay jek jek rek ñu ne wessuna na lool lepp nak jappal ne li gën cher ci sa dundu li gën cher ci li nga mom li sa capital mom moy dem nona. lolo nak lan nga ko yobbal lan nga ca jariñoo ci capital bobu nga xamantene mom la la borom bi subhanahu wa taala jox kon mbok yi ki am xel dëggantaan moy ke ko xamne fumu tollu mi ngi xoolaat mom lan moy résultat ay jëfëm manam temps bi nga xamne mom la ko yàlla may mu ciy dundu lan la ci def lan la ci def lo xamantene dana ko jariñ bu ëllëgee yowmal qiyaama ndax kenen ku nekkon ci lenn ku nek da nga def inventaire léeg-léeg xol sa commerce ndax mi ngi dox wala det sa mbay ndax meññ na wala déet waaye itam sa jëf yi nga xamante ne moom ngay jëf moo gën a jaadu nga di ko xoolaat foo toll ndax temps bii yaa ngi koy jëfandikoo ci loo xamante ne dina la jariñ bu ëllëgee yowmal qiyaama ndax yonent bi sallallahu nee na ñaari mbir a ngi nii ñoo xamante ne nit ñu bare bare bare nañ ko ba dañ caa dañ caa perte dañ leen caa nax mooy ban as sihhatu wal mooy wér yàlla may la wér may la kàttan profité woo ci loolu ci def te defal ci borom bi subhaanahu wa taala loo xam ne boo liggéey da nga mucc ba feebar ñëw bu boobaa doo mënati la nga waroon a def wala nga am jot sàggane ko di dund ba xëy-xëy temps booba dem mënatoo la nga xamante ne moom nga waroon a waroon a def mbokk jullit yi borom bi subhaanahu wa taala daf ñuy jàngal toujours ne eh, nañuy xalaat li nga xamante ne mooy dee bañ a guddal lool suñuy mébét jàpp nañu dañuy béel fii ba faw fàtte mbirum àllaaxira nekk rek ci li nga xamante ne moom mooy mbirum euh, àdduna mbokk yi kon ku yëg euh, waxtu woowu noonu muy deme demin wu gaaw woowu ak njariñ lu bari li nga xam ne moo ci nekk loolu ku ko yëg war ngaa fexe ba sa waxtu woowa nga dundal ko ci loo xamante ne lu lay amal njariñ la fexe ba la gën a baax ci jëf ya nga di ko euh, yittewoo di moytandiku itam lépp loo xamante ne ñaawteef la ndax kat àdduna ñaar yi ñoo fi nekk boo fi amee kàttan yàgg yàgg kàttan googu dina dem ba nga ñàkk ko bu fekkente ne yàlla may na la dund boo fi amee ak ndaw yàgg yàgg màggat moom moo cay topp boo fi amee wér xamal ne feebar itam dana ñëw noonu la borom bi subhanahu wa taala bindee li nga xamante ne moom mooy àdduna bi allahu alladi xalaqakum min daaf yàlla da leen di bind ngeen tàmbalee ci néew doole mënu leen seen bopp dara kon bis bu ngeen mënalee seen bopp gaaw leen góorlu ci temps boobu pour def ca lu baax parce que da ngeen delluwaat ca étape bu njëkk ba ngeen jóge woon te mooy néewaat néewaat doole mbokk jullit yi àdduna borom bi subhaanahu wa daf ko melal ne dafa mel ne koo xam ne da bay sab tol mu daldi di rafet lol jek lol nga yemu ci lol kontaan ci lol waye do tok ab dir bu new lu rek nga dem fekk tol boba lang fa gison lepp mu don verte rafet jekk lépp mujj nek legi am ñax ak mboob nonu aduna itam nonu la mel comme ni nga xamantene alquranu karim wax nañu ko mbok julidi kep ko xamantene borom bi subhanahu wa taala may fan wu gudd te yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nañ sama xet wi moyen d'âge bi moy 60 eh, ba 70 ci lañuy dund kon ku yalla dimbali ba nga dund lu mat 60 eh, eh, ans war bayyi wat xel bu bah baakha baax bah sa bop xalaataat li nga xamantene mom moy fatu waye même ñeuk do waxtu war nga fo tollu di khalat de di wajal sa bop waye ku yalla may ba nga dund ba waxtu boobaa moom ngant amatoo ko comme ni nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nañu ko moo tax mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñoo jàngal ne profitoo leen ci yii balaa yii di ñëw profitoo leen ci yii balaa yeneen yi di ñëw yooyu mooy yan mu ne boo nekkee ci ndaw nekk waxambaane nekk si diggu doole góor góorlul loo man ci lu baax nga def ko bari waa na jeunes yoo xamante ne la leen sànq mooy waxtu woowu nga am doole ci lañ naan damay xaar ba màgg te xamuñu ne waxtu woowu mooy màgg dëggantaan foofu nga war a defee li nga war a def lépp nga sàggane ko jaaxal ko ci am po ak i caaxaan ba xëy-xëy mag ñëw bu boobaa la nga mën a toon doo ko doo ko mënati boobaa perte nga lu baree bari étape bu mag a mag bu am solo bu ci sa dund yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne itam profitoo leen ci bu ngeen amee wér bo xeye meuna jog meuna doxi say soxla profito ci ci góorgóorlu ci jaamu yalla ak fagu ay tiyaba ndax kat bis dina ñew nga meunu lo jog teud wala ñu jang jange la yobbo fa nga xamantene mom moy hopital naka non itam bu la yalla maye dara lum la may profito ci jaamu yalla ca loolu mu la may bala ñak di ñew bu boba la nga mënoon do ko mënati naka noonu itam nee na boo jot ci ci def lu bax balaa ngay dem ba ñàkk jot daal di lay dal naka noonu itam sa dund nga profitoo ci ci li nga xamante ne moom mooy euh, def lu baax balaa li nga xam ne mooy dee di ñëw kon mbokk jullit yi daal euh, jullit bi war naa góor lu toujours ba nga xamante ne tayam mooy gën démbam chaque fois chaque jour bu xëyee li muy yéene mooy tey dinaa def lu gën la nga xamante ne moom laa defoon démb waaye koo xamante sa démb ak sa tey toujours ñooy yem kooku ku ku perte la parce que yëg amul yëg-yëg ci ne dundam mi ngi dem te dafa war a góorgóorlu war a profito def ca li nga xamante ne moom mooy lu baax te itam amul dara loo xamante ne day sax amul dara luy sax lu waaye nekk lon lu nekk xamal ne coppite mën na caa mën na caa am borom bi subhanahu wa taala nee na wala nabluwannakum bi cheyin min alxawfi wal juuci wa naqsin min al amwali wal anfusi wa samarat ci kaw suuf dinañ leen di nattoo mbir yu bari da ngeen nekk ci jàmm mu yàgg ngeen jékki-jékki ñàkk jàmm daal di leen di dal da ngeen woomal ba ba euh, yàgg ngeen jékki-jékki xiif dal leen naka noonu itam euh, da ngeen am woomal mu yàgg ngeen jékki-jékki ñàkk seen alal wala seen i bakkan wala li nga xamante ne mooy seen i euh, meññat kon nag ku xam loolu la la war mooy étape boo tollu rek góor góorlu ca te itam natt yooyu yàlla di la teg ak coppaxndiku yooyu di ci am sag dund itam borom bi daf laa bëgg a dimbali ba nga gën a góorgóorlu ci jaamu yàlla ndax jullit bi ñaar ci diggante ñaar yi rek lay wëndeelu toujours ci ay natt yu metti wala ay natt yu neex bu fekkente ne dafa am natt yu metti bu boobaa yàlla ubbil na ko buntu jaamu yàlla bu mag te mooy ak sabru muñ bu muñee loolu martaba bu maga mag la tuyaaba ju bare bare la ci am wala ñu natto ko xewal ndax xewal itam natto la borom bi dalay natto ndax li ma la defal ci xewal dang ko jëfëndiko ci luma neex wala det buñ la natto ci xewal nga jëfëndiko ko ci li neex borom bi subhanahu wa taala boore ko di sant bu boba xewal rek mo la cey fek mbokk julit yi julit bi fu mu tollu dafa war di tuub di dellu ci borom bi subhanahu wa taala di jéggulo ay bàkkaaram borom bi nee na wa tuubu ila allahi jamian ayuha almuminuuna laallakum tuflixuun saa yoo saxoo tuub di jéggulu say bàkkaar loolu dina la dimbali ba yàlla may la euh, mujj gu rafet ndax yow da ngaa taqoon ak tuub ba booy faatu fekk na ci tuub ci ngay faatoo waaye koo xamee ne da sàggani tuub doo jéggulu say bàkkaar wéy ci sag mbewte kooku yàlla mën na laa nattoo mujj gu ñaaw ndax da ngay dem ba fa nga xamantene fa ngay reccio fekk na réccu weesu na kon mbokk yi nañu gor gor lu wat bu baakha a baax ci li nga xamantene mom moy li tax ñu ñëw fi te itim fàttaliku li ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañu kun fi dunya ka annaka garibun aw aabiru sabil aduna bi dal bo fi nekké melal ne ko xam da nga tukki ci ab barab fii ko fa da nga faa jaar war a jàll escale nga fa def na ngay comporté du bokk boo nekkoon ci kër goo xam ne xam nga ne fii nga dëkk kon àdduna yitam noonu la dañ fee jaar mu nekk benn passage bu gàtt ñu war a dem nag ci geneen kër goo xamante ne mooy këru dëgg ga mooy kër gi sax mooy kër gi nga xamante ne nii fa la ñuy nekk ci ay xéewal ba faw wala ñu nekk ca safaan ba ba faw kon nag ku nekk yaay xool wan yoon ngay choisir fan ngay jaar fi fil janna wa fariqun fi sair kuréel ci aljana ak kuréel ci safara noonu la borom bi subhanahu wa di xàjjalee nit ñi doomu aadama doomu aadama yi bu ëllëgee yowmal qiyaama waaye nag ku ci nekk kuréel ga nga fekki dafa fekk ne fii ci àdduna dangaa toppoon yoon wa nga xamante ne moo jëm fa kuréel googu jëm kon nag yow tànnal yoon wi nga xamante ne mooy siraatal mustaqim moo lay jëmale fa xamantene mo lay muccel bo legge yowmal qiyamah yalla nañu borom bi subhanahu wa ta'ala muccel ñun ñep ci safara yalla nañu borom bi jégel li nga xamantene mom moy eh, aljanna اللهم اهدنا وسددنا والهمنا رشدنا وقنا شر انفسنا واعذنا من الشيطان واوليائه وطهر جواحرنا عن مقارفه الاثام وبطوننا عن اكل الحرام وقلوبنا عن الغفله واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك